tey jii ci biir bi dëppoo ak fukki fan ci weeru mars Serigne taxa basiiru Mbacké xëy dem ci jumaa ji ngir saytu liggéey bi ñu fay amal sëriñ bi njëkkee ci bërëbu sëriñ bu mag bi ngir def fa ay ñaan laata moo génn xoor liggéey bi ouvrier yi ak entrepreneur yi di amal ci jumaa ju mag ji ci lépp mu àndee ko ak sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre ginnaaw ci loolu sëriñ Bassirou Mbacké Abdou Khadre daal di wutali yeneen liggéey yi yu nekk ca Daaru Marnaan mu am liggéey yu am solo yoo xamante ni ñoom la ñu dénk waa kër sëriñ Mandoumbe Mbacké Xabaan ak liggéey bi nga xamante ni am na fa muy benn salle de conférence buñ fay liggéeyal ci njiitalu Serigne Sidi Nar Diène eh, ci kaw loolu sëriñ Bass Abdou xaar daal di rafetlu liggéey boobu ñu def foofu mu nekk liggéey bu mucc ayib ci loolu sax am na beneen liggéey boo xamante ni Serigne Ba sàkku na ko fa ba mu waral ñu daal di koy nat si saa si Serigne Bass Abdou Khadre daal di jubali université foofu sax fa la jeexalee liggéey bi nga xamante ni mu ngi doon amal ci chantier yi ñuy amal ci biir dëkk bu sell bii ji Touba ci njiitalu Serigne Mountakha Bassirou Mbacké